dikkati naa réewum Sénégal day daanaka pasti lay méngool neex ci kaw wex ci biir turbine yéen kaay na ma déet sénégalais kay dafa mel ni ñoom ñoo xamul nag lan moo ne ci seenum réew FMI nag ma nga toog fee di gërëm Sénégal ak a tàccu te tàccu gii dana mel ni yow ak maamam yoowa naan maam damaa bari ay soppe fu ma romb ñu may tàccu maam jënd ko déet tàcc yooyee day sa maam fent ko moo ko tax a gudd fan waaye turbine yéen kaay naan man Sénégal gii tàccuk FMI gii day bu nu jayee ba nu jayeexu wallaay daanu nelaw te du nu yandoor FMI ma nga naan Sénégal Sénégal say not baax na sa koom baax na lépp moo ji Afrique daal daanaka bokk nga ci nga xam ne ñoo fi teg tànk turbine nan ko déet mag nuy jaay de suñ nu jayee ba nu cappi cappal fekk ña ngay nuroog maar day taali day <laughs> yéeni kaayub dee média bi naan man senegal yi jox leen ma nopp bu baax bi ma xamal leen ni lu FMI tagg-tagg senegal bu leen fàtte ni sonn ngeen de lool sax deesu leen ko fàttali ndax saabu ngeen yeewoo ci ngeen di yeewute ci ngeen di fanaan waaye seenu coono gii ma ni la teg leen ko ci kanamu lii FMI di wax mën ngeen nekk ci réew moo xam ne dañuy xëy fay di gën di ndóol te ngeen ni réew moomee ma ngay jëm kanam l'observateur naan ko déet déet Sénégal day fi mu ne lépp na nag fexe na ba koppar googee daal di dugg ci gafaam laata élection présidentielle yi di jub si waaye dal fexe na it def na kéemtalaay kàttanam moom réew mi ba bor yi nekk ci ndoddam daal di wàññeeku tribune yéene kaay naan kon bul fël gémmi ñu sàmba ba ñu moomee suñu bopp ak tey di indépendance Sénégal mani la mënta génne boppam ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la nekkee ay junni junni milliards ñu ngi koy ut ci institution financière yi lebal nag waaye daa tax réew mi génn ci ndóol yéene kaayub dee média bi naan sénégalais bi yow laay waxal xool ma milliards yooyee nga xam ne daal dinañ koy leb bitim réew ay at indépendance ak tey fu mu feeñ ci yow dafa tax sa njaboot xëy dafa tax sa dépense mat dafa tax dem ak dikk gii embouteillage yeeg ñàkk woto woo dugg amul ci réew mi ma béykat bi daf koo teree sa xale yi daf leen teree dem Barça wala Barzak ga dafa teree dund gi daal di cher lool ci réew mi lan moo yokkuwul ci réew mi jamono jii tur naan kon Sénégal may ma nopp bu baax bi te nga déglu ma ma wax lay dëgg milliards milliards yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ñun la lebi nañ ko bitim réew lan la soppi ci sa dund laa bëgg a xam la nga sonnoon daaw ak daaw ji lu ko raw nga sonn ren saabu bu école ubbee ak i jafe-jafeem mu école yi doy dafa am ci réew mi ngir xale yi jàng faju gi nag moom lan moo ci soppiku ndax ku yóbbu tey sa malade l'hôpital daanu ko faj ba pare laataa ñu lay laaj dërëm ordonnance yi garab yi dafa wàññiku fi mu ne kay réew mi reetaan sax xanaa moo fi wàññeeku tex tex may ree le quotidien le quotidien nan kon en tout cas souffre ba moom ma ngay caxat caxatee diggante mbooru ak daaru xudóos ña dëkk nee ñu gaz yi nga xam ne mooy jugee ca usine ya ma nga bëgg a tukkal seenu jamono di leen jox wopp yoo xam ne maar day taali turbine yéen a kaay ne ma moo taxit baykat yi dañoo daal di fipp ci ICS nekk ca Mboro poste de garde ba nekk ci cité mbay mbay ñu daal di koy taal direction bu protection civile nag ñu daal di koy woo ci mbir mi yéen a kaay des média bi naan ba tey ña nga naan réew mi mettiwul yoor yoor yéene a kaay naan kon lu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn milliard moom la ñu FMI nag daal di lebalati forum civil di sàkku nag naka lañ koy fayee ak bor boobee fu mu jëm Sénégal nag sonni la professeur Maysa Ba bu mel ku naan boo xumma la FMI Kan naan day mooy médecin bi nga xam ne moo lay bindal garab ba pare garab yooyee mu lay bindal moom FMI moo lay jaay garab ya Zeynab Sangaré ci la tee mooy yéene kaay jox kàddu Birahim Seck bu forum civil it Birahim naan man FMI nu muy cuuboo moom a jaaxal lan mooy taxawaayu FMI ak lan la FMI miy bëggal Sénégal la muy joxoñ baaraam senegal ñuy kupp bari na te kupp yëpp ay bor la yoo xam ne day teggu sunu ndodd muy metti lool Sénégal nañu leeral li woon gannaaw ba ni mu koy tegee askanam naka la réew mi ko di jee naan kon sàll ngaari lam tooro buur gédee kàcce ngaa laa ma yow ca kanamu union européenne fa nga taxaw yow président Macky Sall di layal Afrique l'enquête ko di jee naan man boobu ci wàllu politique moom Karim Meïssa Wade day ña ngi koy raxasal yoonam nag ngir Karim daal ñibbisi si réew mi laas ko di jee naan kon léegi mu am de opération ñibbisi bu Karim Meïssa Wade waa parti démocratique sénégalais ca la ne Sada Ndiaye daal di fekki waat Karim Meïssa Wade le témoin yéene kaay naan kon waxtu woowu ñaar yenn ci organisation yu société civile bi ña ngay lu dëgg-dëgg nag processus électoral bi ni muy demee ci réew mi tëggum élection nee ñu dara jaaru ci yoon fi mu toll nii ministère de l'intérieur moom la ñu weñ loxoom ngir nag mu daal di nangu dogal ba nga xam ne attekat bi jël na ko ngir ñu dugalaat Ousmane Sonko turam ci liste électorale yi la nga xam ne ñu ngi koy gantal parti politique yu opposition bi société civile bi na jeex caxat caxatee bi nga xam ne ñu ngi koy caxat caxatee loi électorale bi te kenn defu ko kudul ministère de l'intérieur na dakk ña ngay woo Sénat it mu responsabilité am lépp loo xam ne war na ko def moom Sénat googu dëgg-dëgg na ca taxaw point actu naan bàyyi leen xel Guy Marius Sagna ma ngay xàllal boppam ak yoon bien bon libération yéen kaay nan man Falla Fleur bajjo bi Falla Fleur day duggati na ci geneen mandat de dépôt altine bi ñu war ko attewaat ci tribunal ci flagrant délit moom Falla Fleur ni ki tey ci alxamis gi mu war a xaar atteem nag ci procès bi mu amoon ci kanamu tribunal correctionnel bi Falla ñu koy jaabanteloo ba maar day taali xooluñu ci wàllu wér gu yaram yaram la wax boobaak léegi soppikuwul ne mosuma def xanaa kay ab acharnement kese fu ne nag ña ngi fay jagat jagatee di yóbbu critique yéen kaay naan man en tout cas bàyyi leen xel présidentiel gi ña nga nar a tayle présidentiel gi fa yallaahu te boo moytul nag ci loxol étudiant yi nga xam ne dañoo bëgg daar daar ukaat ubbi fa ñuy jaaree nag dal di tayle présidentiel gi l'observateur naan man boobu biir bennoo bokk yaakaar day ña ngay teesante seen biir diggante Amadou Ba ak député yu bennoo bokk yaakaar yi député yi nag di xamle ni ministre ministre daanaka jot leen yomb tourné amadu Ba am ñum ca boolewul parrainage nag daanaka amul engouement lañ ca doon xaar amut kon jafe-jafe daal dinay juddu daar daar waa grand place naan man jafe-jafe yooyee dee àlluy sow gisu ko moom njiital mouvement bu essanciel diggante banlieue bi ak Guet Ardo ca Fouta Aliou nag dajale nam ngir amadu Ba naan bu dee état xam na ko bu dee yeggali yéene président Macky Sall amadu Ba man na ko te it homme d'état la boo xam ne ñépp ko ko nangul aljuma ba porte parole bu Guet Ardo nee nañu xool ci suñu doom Aliou Sow di jàppale Amadou Ba laas yéene kaay ne ñooy an mbalit mi day daal di soobu ci gréew turbine yéene kaay naan man yi tax na lu ëpp ci juróom benn million ci numéro daal dinañ koy ñàkk yéene kaay des média bi naan man desal ci man ma dem ak yow ci forum bu FOGECA bi forum boo xam ni joyante ci wàllu koom ci Afrique la ñuy daal di waxtaane njiit la di Amadou Diagne daal di di kaat lu waral forum bi moom Amadou Diagne daal di na waxtaan gi ni amal ci King Fahd Palace képp koo xam ne am nga doole ci dénduk Afrique ba ci président yi daanu teew Amadou Diagne naan forum boobee buñ ca noppee ca liggéey ba day lan ca génnee ci xam-xam daanu ko jébbal mbootaayu xeeti fii ci Afrique daanu ko jébbal UEMOA Amadou Diagne ne daanu ko jébbal CEDEAO waaye itam jébbal ko sunu njiitum réew waaye tam institution financière yi ngir ñu gestuwaat Afrique joyanti koom gi amadu naan fukki at ak juróom benn ci reen ñuy amal FOGECA bii te at wu yàlla sàkk Afrique buñ ca génnee mu daal di cay gis boppam gannaaw forum ba le 3 le 4 nekk diine de Galaba diggante Kofi Olomidé Bassirou Koyaté bu Mali njabootuk Ami Sakho Kiné Lam Ndiaye ak Waly sekk Seck ma nga xam ne baayam coon Ballago Seck moo tëgg Fojeka ba muy Fojeka ak tey Amadou Diagne naan Fojeka bi yemul ci Sénégal kese bari na ay réew yoo xam ne ci Afrique ak ci àdduna wërngal këpp yi day amal forum bi lépp nag ngir lu joyanti koom ci Afrique moo ko waral le point naan man tàggat yaram ca Podor final tournoi kas-kas ga Moussa Amadi Sarr directeur bu CROUS bu jam ñaajo daal dinay sargal ndawam yi foofee tribune sport naan man Matar Bay daal dinañ koy sampal ay raaya ci xeex gi nii xeex dopage Matar Ba daal di jiite conférence des